parce que argument yi mu joxe mënul d'accord parce que d'abord il a dit le DOB mooy débat d'orientation budgétaire mais mm-hmm. pare làq le le n'a pas dafa làq doom dóor doom maanaam waxul dara ci premier ministre bi premier ministre li mu def wax le l'Assemblée nationale de tous les noms alors que la responsabilité gouvernementale, c'est collégial. Je pense que le gouvernement, en réunion de bureau, en toute responsabilité, a pris la nga d'acte de la décision budgétaire parce que nous, nous avons a la déclaration de politique générale Nous avons fait bu que le premier ministre nous na wax fi wax exactement lan mooy orientation ak wala wax projet bi nga xamante ni ñu ngi koy wër te kenn gisu ko su boobaa au moins débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne amul vote dina am sens muy benn beneen bi mu ne dañoo dàq. li nga xamante ni mooy proposition de loi de révision constitutionnelle bi nga xamante ni yónni na ko député askan wi ñoo ko fal lu mu mën a fal dafa lu mu mën a mel baatu askan wi la am pour revenir maintenant ci argument président yi nga xamante ni d'accord ma ci ak moom mhm. mu ne li mu waxee DOB mu ñëw ci projet de loi de révision constitutionnelle bi nga xam ne dañ koy daal mais président de la république li muy fàtte nous, ñun ni ñu politique dañ ko avec des arguments pour le conseil économique social environnemental bi développé nañ au conseil des collectivités locales arguments yi développé et l'assemblée souverainement a décidé de ne pas voter le projet de loi mm-hmm. parce que d'après nañ avait rien d'urgent d'abord c'était une ko parce que fi ñu toll nii ci argument lañ koy def d'ailleurs waxoon boo ko fàttali ko ci plénière ba tey bi mu ñëwee loolu la wax ci discours à la nation bi nga xamante ni mënoon na koo vocal. Mhm. beneen argument bi nga xamante ne ni moom la wax moom mooy euh, dañu jël ay prérogatives am fixer la date de la DPG. Mhm. le président dafa utiliser ay prérogatives constitutionnelles pour assouvir des des petits c'est de la petite politique parce que moom moo convoqué session extraordinaire moom moo fixé la date de la DTG mais aujourd'hui la mu waxoon moom ak bindam jaratul dara ci réew ak sur le plan national mm-hmm. parce que président moo wax bind ba pare weddi boppam te prérogative yi nga xamante ne moom la ñuy wax demee ñetti yoon pour surcharger l' agenda parlementaire ba pare wax ne nañ def DPG en exposition sans pour autant fixer la date mais bu fixewul date mhm. l' article dix neuf du règlement intérieur de l' assemblée nationale muy la conférence des présidents moo ko jox ay prérogatives pour que mu fixe agenda wu assemblée nationale pour wax ne liggéey bi nii lay def mhm. ñu fixé le li nga xamante ni moom la ñu waxoon ne déclaration de politique générale dafa am mais président bi mu jëlee ay prérogatives constitutionnelles bind assemblée nationale ne date treize la jàpp mais l' assemblée nationale s'est rangée parce que dañu jàpp ne comme moom